Euh, suñu leen jógee ne leen xëy na ñaar fukk lañ leen may man je pense que dañoo war a bind képp ku ñu jàpp ne yayoo na ko suñu dajalee loolu ñun suñu wàll ñun compte di relation yi ñu am ci biir Sénégal ak yi ñu am ci bitim réew ak yeneen loola dépasé quota bi ñu alloué ñun ñu seet naka la ñuy fexee ba ñooñu am kilifa gi mën na ni tey jii ci gafakat Sénégal yi benn million ménage la ñu mën a jàppale

mais dañ koy teel a sóor loolu moo waral ma ni liggéey bi nañ ko defee ci anam boo xam dañu xam ne ñun ñu sommes ensemble ñun ñoo fat nous sommes d'abord en tant que ay mais ensuite en tant que Sénégalais puisque nous ne pouvons pas simplement réagir en tant que les Thiessois mais dañu war a réagir aussi en tant que ay Sénégalais ndax ñi nekk ci yeneen dëkk yi ñun ak ñoom ñu ñoom tey jii ku ci am sa mbokk moo xam ne amul mais ci yow lay fëkk ngir nga taxaw kon cette solidarité là ou bien esprit de solidarité pour nous habiter pour que ensemble dans le cadre de cette grande crise nous abordions aborder les trouver une solutions sans que nous millions pas société.